ko ginnaaw bi nga xamante ne ñu ngi doon sàkku émission ak moom docteur Amadou Ndiaye ñu ngi lay wax euh, dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM. waaw Fatou maa ngi lay nuyu di la sant euh, di euh, nuyu également bépp auditeur auditrice bu rajo Rewmi FM donc ñu koy déglu fii si Sénégal ak àddina bi yëpp. merci beaucoup docteur tàmbale rek ci li nga xamante ne moom mooy spécialiste bi di biologiste bu ñu waxee biologiste rek pour ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy déglu te duñu may nopp biologiste euh, lan la wundu docteur Ndiaye waaw ah, soo déggee ne biologiste mooy ñi nga xamante ne euh, soo demee kër docteur euh, ñi ngi fay taseel dañuy saytu ndax feebar yëpp moo ñoo bokk nu ñuy feeñee ñu ñuy fesee mm-hmm. biologiste moom mooy ki nga xam ne Euh, mooy féete wàllu analyse yi mm-hmm. mooy wax euh, médecin yi ne ko malade bi nga sedd lii moo ko dal ak lii donc ñun loolu mooy suñu liggéey loolu la saytu mm-hmm. moo tax su fekkee dañ nit ñi dañ ne docteur bii mën na faj docteur boobu tamit ci biir xolam xam na ne ka koy gindi nan ko lii moo jël sa du li ko koy biologiste Euh, tey jii biologie certainement médecine dafa xaw a yaatu jàng bi dafa yàgg ban cursus la nit ki di def ba ñu ñu ko ñu mun ko woowee un biologiste. waaw pour nit ki euh, ñu koy woowee biologiste day jàng euh, jàngum docteur nekk def six ans pour nekk soutenir thèse am nekk docteur ta en médecine wala docteur d'état en pharmacie su paree loolu depuis deux mille dix-neuf ñu teg lu ñuy wax DS d'autant pour moi diplôme d'études spécialisées voilà en biologie clinique soo ko defee ñeenti at soo génnee si boobaa ñu ne la biologiste nga avant 2009 amoon na lu ñu doon wax ay certificat de d'études spécialisées nga def ko si bactériologie def ko si parasito def ko si biochimie def ko si hématologie def ko si immunologie boo amee loolu yëpp nag ak sa diplôme docteur euh, en pharmacie ou en médecine ñu ne su soog a wax biologiste ñeenti at ngay def ñeenti at déjà certificat d'études spécialisées yëpp la ñu tënk. Mhm. depuis 2009 su la ñuy wax diplôme d'études spécialisées en biologie clinique. képp ku ko amul nag mënuñu war wax la turu bi woowee la biologiste. Mhm. nit ñaa ngi jaawale. nit ñaa ngi jaawale ndax mun nga dem ba côté fac science nga jàng fa nga pare def master en biologie animale génn ñu woowe sa bopp biologiste mm-hmm. mais nekk goo biologiste pour nga nekk biologiste il faut nga nekk d' abord docteur d' état en médecine ou en pharmacie ba pare jàng ñeenti at euh, am diplôme bu lijaas mu ñuy wax euh, diplôme de spécialisé en biologie clinique mm-hmm. pour ñu commencer di la woowe biologiste mm-hmm. am na tamit ci euh, kàllaama ñi nga xamante ne dañu nekk ay technicien ñoo xamante ne dañuy jàng dem de la force yi jaar wala ñu jaar seen école de formation yi pare di liggéey ci laboratoire yi ñu leen woowee biologiste mhm. mais duñu biologiste mhm. kuy biologiste mooy ki nga xamante ni non seulement euh, lépp li nga xam ne xeetu analyse la da koy def mais rawatina ki nga xam ne moom mooy signer résultat yi moo koy analyser interpréter ko jox docteur bi bi nga xam ne mooy faj muy médecin bi nekko lii la sa malade am mhm. amaana ba sur yi am na nu muy demee mun na ko gindi ne li nga laaj doyul laajatal nangam ax nangam ba médecin ba médecin bi mun ko laaj mu mun ko gindi mu mu teg euh, diagnostic am mën a faj malade bi ba mu mucc ay mhm. docteur nga wax ne am na ñu koy jaawale jaawale boobu noonu si lan la ñuy parce que certainement war na am lu mun def la différence entre li nga fi expliqué léegi nii pourquoi ñu koy jaawale. waaw xam nga euh, su fekkee ni da nga euh, def technicien. Mhm. maanaam bac plus deux la da am sa bac jàng ñaari at nekk technicien de simple. soo nekkee technicien nag de laboratoire si laboratoire ngay bind ngay fa ngay dem liggéey mm-hmm. lépp analyse bu ñuy def di nga ko def su fekkee tamit aussi euh, da ngay génn technicien supérieur bac plus trois la mm-hmm. kooku mun nga fa liggéey mais doo nekk ci kilifa ga pour nga nekk kilifa ga euh, non seulement mun liggéey bi ba pare di interpréter résultat yi kooku il faut nga den nga doon d'abord lu ko njëkk docteur d'état mm-hmm. am médecine wala en pharmacie jàngat ñeenti at am li jaa suñuy wax euh, diplôme d'études spécialisées en biologie clinique loolu koo koy biologiste waaye nag euh, ñëpp ñuy liggéey ci laboratoire ñu biologie mm-hmm. donc euh, dañuy dañuy tàmm ci kala mën naan leen ay biologiste biologie mais ki nga xamante ne moom moo am moom moo war a am sañ-sañ signé moom moo am sañ-sañ interpréter résultat yi moom sañ-sañ également weccante xalaat ak doc yeneen moroomu docteur am yi kookoy biologiste Euh, dañuy des euh, ci wàllu woowu ginnaaw bi spécialisation bi amee eh, biologistes yi dañuy liggéey ci li nga xamante ne moom moo nekk domaine pharmaceutique wala domaine agroalimentaire wala ba ci sax li ñuy tuddee cadre environnemental ñu taxaw rek euh, ci bi ma njëkk wax muy le domaine pharmaceutique ci ban moment donc le biologiste bi di indi son apport particulier waaw donc soo oh, su ma la déggee sa clama yow sa wàllu xalaat sax am na jaawaatle bi ci nekk mm-hmm. ndax suñ ne biologiste moom euh, biologie médicale lay def euh, am na nag ci euh, université mooy kër gaaru kawe gi ñuy wax faculté des sciences boo xamante ne am na ñoo xam ne dañ fay jàng biologie végétale mm-hmm. am ñooy xool wàllu garab yi garab yi naka la ñuy def yenn xeetu garab naka la def ba nga xamante ne euh, dinañu mën a euh, fexe ba xool garab bi nga xam ne moom mooy dund si tàngaay ak si si seddaay mm-hmm. ah, ak euh, tamit li nga xamante ne mooy ferñeent yi nekk si garab naka la def ba exploité ko mm-hmm. kooku tamit soo demee di jàng si jàngum pharmacie mm-hmm. am na benn branche bu ñuy wax botanique ñooñ tamit dañuy jàng si wàllu biologie végétale boobu ute dégg-dégg lu ñuy wax biologiste. Mhm. ku ñuy wax biologiste soo déggee ñu koy wax mooy euh, biologie humaine biologie humaine mooy euh, biologie animale. Mhm. en réalité euh, boobu la ñuy wax moo tax ñu naan biologiste ñooñu si doomu aadama rek. la la ñuy la wu foofu la seen liggéey nekk pour xool euh, jan mooy euh, norme su yaram bi normale naka la war a mel su amee benn jafe-jafe muy euh, organe bu nekk si moom muy roño bi di foie bi di xool bi lépp jafe-jafe yi si am ñoom ñoo koy saytu wax ko docteur yi mm-hmm. ba tey uti na aussi ak ñi nga xamante ni ñoom dañuy dem ci kër gu màgg ku ñuy fu ñuy wax veto médecine vétérinaire ñooñu ñooy xool mala yi. Mm-hmm. yan feebar la ñu am mais ñooñu tamit dinañ leen wooy biologiste mais en réalité le terme ñu ko moom mooy ñi nga xamante ne ñooy def biologie humaine mhm. ñoo nekk si hôpital yi mhm. nekk si laboratoire yi wala si clinique yi te loolu ñoom seen xam-xam yëpp si nit la nekk mhm. voilà docteur tàmm la tàmm la rek tàmm la wax tàmm wax <laughs> moo tax euh, def yenn saay yi même ñun dañu ñun ñi da uh-huh. euh, day ñëw naan ñu laborantin uh-huh. koo xamante ni dañ ko former rek dans le tas yi muy mën liggéey bi te amu ci benn lijaasa kookoy laborantin mais docteur d'état en médecine en pharmacie am sa diplôme euh, d'études spécialisées en biologie clinique wala nga jàngat ba am sa beneen diplôme li jaase beneen doctorat mhm. comme euh, sunu sunu genre yi am nañ doctorat et sciences en génie des populations foofu da ngay nekk biologiste mhm. mais loi bi tëral tamit 2009 ba ñuy créer diplôme bi nga xamante ne mooy diplôme d'études spécialisées ki nga xam ne da nga yoroon laboratoire d'analyse ngay moo xam da nga professeur d'université nga mhm. moo xam da nga doo professeur d'université mhm. dafa am article neuf dana la yow da ngay am rang wu biologiste wala biologiste adjoint mhm. mais kooku mun nga liggéey si hôpital public yi mais su fekkee ne danga nga bëgg ubbi laboratoire fokk nga am lijaasa bi nga xamante ne euh, mooy diplôme de spécialisé en biologie clinique pour mën a ubbi laboratoire mën a euh, def ay analyse si euh, doomu aadama yi ndax il faut ñu sécuriser ko sinon rek Euh, fu nekk la ñuy jaar mais nag biologie yi nga wax biologie animale effectivement euh, garab yi ñi yu ñuy génne nii fermenter di ko fajee ñu koy jënd si pharmacie yi euh, maanaam yooyu ñu ngi jóge si plante yi moo tax ñu naan biologie végétale donc ndax garab dafa am solo si nit bépp garab boo gis rek comprimer wala muy sirop wala muy piqûre lépp loo gis rek ci lu si ëpp si garab yi lañ ko jëlee moom ñooñu ñi koy saytu ñoo tuddee biologie euh, science bi moom la tuddee biologie végétale. Mm-hmm. li nga xam ne moo jëm si ñi tax mala moom lañ tuddee biologie animale. Mm-hmm. mais euh, terme biologiste ñu ngi ko faral di xaar ci ki nga xamante ne moom euh, xam-xam yëpp mi ngi màcc si doomu aadama. Mm-hmm. am am doctorat en médecine da nga def huit ans d'études. boole ci sa spécialisation quatre ans. mooy douze ans wala nga nekk docteur en pharmacie am six ans d'études am sa diplôme d'études spéciales en biologie quatre ans muy dix ans mhm. yooyu ngay jàng ba taxaw ne léegi nag am naa sañ-sañ man joxe sama xalaat mhm. non seulement càmbar liggéey bi diriger ñi nga xamante ne ñoom it euh, dañoo ay techniciens lañ euh, ñuy liggéey ci liggéey bi nga leen di former ba pare résultat yi ko càmbar di ko di waxtaan ak yeneen naataango médecins yi nga xam ne ñoom ñooy consulter malade ndax ñoom considéré que ñoom feebar yëpp ñoo bokk nu ñuy nu ñuy feeñee si doomu aadama mm-hmm. donc ñoom ñoo am ama euh, di ko wax ne ma nit ki nga ma envoyé de li nga njottoon du moom lii la moo ko daal pour que moom it mu mun ko faj mm-hmm. man waaye beneen fànn bi tamit aussi ñu si ëpp noon si biologie si dañuy nekk day fekk ñu njëkk doon ay pharmacien pharmacien nag moom moo aajow di defar garab mm-hmm. moo ajow defar garab moo tax si cadre boobu sooy defar garab pour nga defar garab bu mun a faj nit il faut nga xam nit ki nan lay fonctionner su mm-hmm. lépp normalé mm-hmm. su amee jafe-jafe naka la war a fonctionner pour mën a génne ay garab yi nga xamante ni dinañ mën a faj nit ki te soo koy génne yaa nga koy jëlee si garab si plante yi mooy euh, maanaam si nature bi si végéta végétaux yi mm-hmm. wala nga jëlee ko également si bactéries muy ay euh, doomu euh, ay nu mu tuddati ay être vivant mhm. laa ko mun tuddee naka naka lañ koy waxee sax ci olof être mhm. vivant mooy ñi nga xam ne dañuy dund mhm. fu ñu war a dund mooy ñoom ñuy indi ay infection fu ñu mënul dund rek dund ñun nit mënu fa dund wala tamit aussi si ay euh, virus ñu jël leen rey wala ñu wàññi seen daxar pour def def ko ay garab pour mun ko fa nit ñi mhm. voilà euh, docteur Ndiaye su ma la déggee bu baax ni nga expliqué moom daanaka xanaa ñi ñuy déglu ça doit être fluide à leur niveau euh, tey seen lépp dafay sukkandiku ci li nga xamante ne moom moo di ay wàllu gëstu recherche expérimentation wax nga ko ci sa biir wax laboratoire entre autres tey jii eh, la biologie bu ñu yeggee ci fenn fi ndax wàllum expérimentation jëm ci wàllum def ay bilan wala ay analyse ndax jumtuwaay yi war pour ñu mën leen tëral comme il se doit le Sénégal ay assez outillé sur ce plan. waaw soo xoolee euh, si wàllu laboratoire moo nañ ne euh, Sénégal mhm. kenn du ko jam naa di ndax euh, am nañu xam-xam bi am nañ matuwaay yi matériel yu utiliser pour saytu li dal doomu aadama soo demee Europe. wala nga dem États-Unis wala nga dem France Canada foo mënti dem même jumtukaay yi ñoo fi nekk moom la ñuy liggéey mm-hmm. même xam-xam bi moo fi nekk également moom la ñuy liggéey donc foofu euh, dañ naan gàcce galaama ndax soo xoolee laboratoire yu nekk si Sénégal yëpp euh, suñ leen doon xool ñoom si wàllu matériel wàllu euh, nit ñi nga xamante ni ñoo fay liggéey donc lu ñuy wax certification ñëpp dañ leen certifié mm-hmm. léegi nag ci biir loolu am na si ñoo xamante ni dañuy euh, am matuwaay wane ne ñoom dañoo xarañ ci li ñu def loolu ñu tuddee ñu nga xam dañuy euh, am lu ñuy wax accréditation soo xoolee Sénégal euh, lu ñuy wax le laboratoire bio 24 dañoo accrédité ñoom suñu defaree seen analyse génne ko àdduna bi wër na foo dem dañ koy nangu ñu wax Institut Pasteur am na ko ku ñuy wax actuellement IRSF e e am na ko ku ñu wax laboratoire national de contrôle euh, de médicaments am na ko léegi yeneen laboratoire yi ñu ngi ci course bi mhm. ndax Sénégal da leen di saytu mhm. li ñuy wax direction de la des laboratoires da leen di saytu boo xool ku ci mel ni Abbas Ndao dem na ba euh, jël en 2009 Euh, prix qualité bu Sénégal prix d'excellence si mhm. euh, kat ci moins de cent agents yi moom mooy Oscar national de la qualité jóge ne Sénégal tamit àndax beneen société Euh, boo xam ne yënguwul ci wàllum paj wàllum laboratoire muy Nestlé dem ba Wagadugu euh, am fa remporté fa prix euh, spécial réalisation produit mooy quatrième édition prix UEMOA de la qualité. Mm-hmm. ñu dem fa indi fa boobu pour wax Sénégal donc muy doon loo xamante ne wane na ne nañuy liggéey laboratoire sénégalais yi mucc na ay xarañaay baa ngi fi compétence baa ngi fi. équipement yi nga xam ne mooy équipement de dernière génération tamit ñu ngi ci pour saytu vraiment euh, li daal doomu aadama yi ba euh, su demee si euh, docteur bi nga xam ne mooy docteur en messine bi ñu koy waxee médecin moo war ko faj dina jox jumtukaay yu ñu ko mën a faje mhm. justement euh, euh, foofu la ñuy des euh, mhm. matuwaay ñu ngi fi ressources humaines bi également xam naa mu ngi fi mais des fois aussi il arrive que ñu def analyse résultat yi war a génn bon résultat yi bu waree génn tey mu xaw a traîner une deux exceptionnellement parlant jour bi la wax génn donc a tout ce qu'il ñu kii ci lenteur boobu aussi lan moo koy expliquer su fekkente ne dafay am lenteur bien sûr waaw amoon na si bu njëkk ah, ah. bu njëkk amoon na si laboratoire yi da ngay def sa analyse parce que soo ñëwee ñu analyse soo ko war def il faut ñu defal la prélèvement. Mm-hmm. donc am na si yenn yi njëkk yenn prélèvement yi ni ñu koy defee moo baaxul su fekkee ne yow laboratoire bi def ko sur place mun nañ ko def faneen indi ko su fekkee méngoowul ak liñ laaj. dañuy woowaat malade bi pour defar ko prélèvement loolu mën ne di yéexant yéexaay si joxe résultat yi mm-hmm. yeneen yi dafa am euh, laboratoire bu nekk am na ay procédure donc euh, am na ñoo xam ne soo ñëwee tey def sa analyse ñu ne la suba nga ñëw onze heures jët su résultat bi suba mun nga ñëw fekk ke nga xam ne mooy biologiste bi mooy signé résultat gis ne am na résultat euh, bu jéggi dayoo boo xam ne normalul jéggi na dayoo mu koy seetaat di ko saytuwaat mm-hmm. loolu mun na ne yéexaay si résultat yi mais ñu si ëpp euh, en général ba ñun ñuy fi Abass ndaw soo defee sa analyse si suba si ba onze heures analyse yi arrêté ngoon ci trois heures su ñëwee fekk sa résultat donc te duñ ci duñu rek ñun waa Abass Ndao mm-hmm. du ñun rek yeneen laboratoire yu ci bëri euh, am nañu xarañaay boobu sauf nag yenn yoo xamante ne mooy pour xool ay li ñuy wax ay bactéries yi nga xam ne ñooy am infection mm-hmm. moo xam dagam si kanamu jigéen lañ jël wala kanamu góor wala gaanuwaayu góor wala gaanuwaayu jigéen wala ginnaaw kër góor wala ginnaaw kër jigéen mm-hmm. ñu war koo jëmbat yooyu dina am ñetti fan balaa résultat yi di génn bi pour xool est-ce que nit ki la mooy tax muy am fièvre surtout ndaw rawatina tout tànk yi. Mhm. kooku il faut mu am juróomi fan ba fukki fan balaa reesaay di génn. Mhm. donc en fonction de type analyse bi bi nga bi nga xamante ne moom la nit ki am. mun reesaay mun na génn ngoon mun na def ñetti fan wala mu dem def juróomi fan ba fukki fan pour mu génn. Mhm. yooyu nag il faut ñu leeral ko nit ñi. voilà loolu lu ëpp mooy tax yenn saay euh, yenn reesaay di tardé mais reesaay bu tardé fi mu toll nii. si Sénégal fu mu toll nii temb temb temb. Euh, yaakaar na ne suy amee néew na lool lool lool parce que laboratoire yëpp euh, nañuy def dañ ko bind moom la xam nañ ay procédure xam nañ analyse bu nekk euh, tey soo ko defee yan condition nga koy defee. nga res malade ñëw ñu expliqué ko defal ko prélèvement yi dinañ ko wax dinañ ko jox benn récépissé rendez-vous pour ko ne telle heure. tel jour tel heure ngay jël sa résultat te su wane ko kay mu jot résultat mm-hmm. sauf su fekkee ne nag euh, laboratoire bi xëy na euh, ndax suñu liggéey ba pare dañuy ñëw si secrétariat ñoom ñooy saisir résultat yi imprimer ko su fekkee laboratoire bi amul groupe électrogène courant coupé mm-hmm. euh, waxtu bu nga jotoon joxoon malade bi mën na jot mu ñëw taxaw fekk du résultat du disponible. Mhm. yooyu mën na nekk wala tamit su fekkee ne euh, comme que ay machine la ay ordinateur ordinateur mën na mën na yàqu. Mhm. su yàqoo yooyu mën na indi exceptionnellement luy indi retard résultat. Mhm. mais en général au Sénégal fi mu toll nii. Euh, résultat bu tardé. dina ma jaaxal lool lool lool. wala suy amit lu néew néew la. Euh, docteur Ndiaye euh, biologie comment est-ce que naka lay porté wu parce que euh, boo jëlee neurochirurgien bi dinañ la wax ci Sénégal pour une population de seize millions amuñu pas plus de son nga jël ci rajo yi ñu wax la yenn chiffres yi nga jël ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy endocrinologue yi ñu ne la pour une population de seize millions d'habitants dépassé ñu cent tey jii boo ñu mënoon wax ci ratio bi nga xamante ne moom moo soxal biologie si fii ci Sénégal lan lan nga ñu ci mën a wax pour cette population. donc euh, loolu lu may wax rek mooy euh, actuellement fi ñu toll nii. biologistes mm-hmm. euh, yi nekk Sénégal doy na ndax at bu jot dina am minimum cinquante biologistes yuy génn yi nga xamante ne par depuis chaque an yuy génn. donc pour ñu pour ñu teg leen ci hôpital yi ñu war a liggéey wala ñu wala ñu ñu décider ubbi seen clinique Euh, ubbi seen laboratoire privé commencé dem di liggéey te loolu ñu ngi continuer ñu mm-hmm. ngi continuer donc xëy na spécialité yi nga xamante ne euh, day jafe nga gis ay fukk rek ñu nekk ñu doon spécialité Sénégal fekkul biologie biologie moom jël nañu tel nañ jël seen matuwaay euh, ci kër gu kaw gi université ba nga xamante ni fi nekk ni Sénégal fu mu mënta nekk mën nañ def fépp fi nga xam ne bërëbu wér-gu-yaram la mun na am benn biologiste ba ñaar ndax fi nekk nii personnel bi ñu ngi leen di former euh, mattay nañ ko doy nañ ko te mun nañu vraiment euh, euh, couvrir Sénégal bi yëpp mm-hmm. donc côté boobu tamit aussi mm-hmm. lu jar bàyyi xel la parce que at bu jot at bu jot lu mat cinquante biologistes dinañ génn mm-hmm. voilà mais am na ñoo xamante ne aussi du duñu rek ay sénégalais ndax dañuy wàlliyaan ndax dañoo nekk ci lu ñuy wax kames ñoo xam ne am na ay sunu naataango marocain yi tunisien yi euh, naataango ivoirien yi euh, euh, ñeneen ñi nekk pays Afrique dañuy ñëw fii jàng si biologie pour dem exercer ko seen réew. Mm-hmm. mais Sénégal jël na ay disposition ba nga xam ne interne des hôpitaux dañ leen di former. ñoom it chaque année dinañu fexe ba si formation biologiste lu mat fukk ba fukk juróom dinañ ci dugg. Mm-hmm. boo booleex nag ñi nga xamante ne ñooy docteur d'état en pharmacie docteur d'état en médecine ñi nga xam ne ñoom biologie dafa dafa nekk seen xool ñoom it aussi dañ leen di permettre ñu ñëw inscrire vraiment si euh, diplôme biologie clinique bi boo am seen lijaasa si euh, ñeenti at. Mm-hmm. Euh, chaque année lu tolloog cinquante biologistes dinañ génn mais ndax euh, cinquante yooyu ils sont tout le temps opérationnels parce que bëri na génn ci branche infirmier sage-femme leur diplôme en main mais exercer métier bi day nekk lu jafe ba des fois sax mën ñu def usurpation wala def loo xamante ne certainement du seen rôle ndax euh, c'est le cas aussi ci seen spécialité bi. non su fekkee spécialité biologie. Mm-hmm. loolu fekk leen ci. Mm-hmm. ndax euh, bu njëkk euh, su muy pharmacien su fekkee docteur en pharmacie la si jàngam am na option biologie da ne di tàqaat ci loolu ba pare ñaareel ba ñu su nekkee médecin la mu pare jàngam tamit su pare jàngam ba noonu docteur d'état en médecine su duggee biologie de première année bu njëkk bu muy jàng suñ ko jàngalee ba pare dañ ko yóbbu mu def ay stage stage d' de prélèvement mm-hmm. mu def ay am indi tant que validé wul stage am nag du avancé. Mm-hmm. deuxième année bi aussi ñu yóbbu ko ba maanaam ba spécialité yëpp yi nga xam ne si na ci biologie maanaam muy hématologie nga xam ne ñooy saytu mbirum deret donc da da ci am da ci dañ koy ci formé ci ñeenti at yëpp. Mm-hmm. at bu jot dina def stage euh, lu mu bon bon dina def stage ñaari weer par spécialité par at. donc ba juróomi spécialité yëpp yi nga xam ne ñoo ñoo ngànk biologie ba moom balaa moo paree bay soutenir mémoire day fekk mu xarañ taxaw taxaw na ci ba nga xamante ni donc su boobaa moom euh, balaa moo pare rek mën na liggéeyam rawatina nag su paree yor li jaasam day moo tax ma ne la sànq si biir wax mhm. su paree mun na ñëw si hôpital public yi liggéey fa comme mun na ubbi laboratoire am tamit privé privé liggéey ca ndax boobu day fekk moom euh, mën na la muy def ba pare balaa moo pare mhm. donc ñi nga xam ne ñoo ñi ngànk formation bi foofu euh, dam fay jaar rek euh, saluer ki nga xam ne moom sama kilifa la mm-hmm. euh, papa la ci man muy professeur Niam Diop Sall mi nga xam ne moom bokk na ci ñi nga xamante ne ñooy bopp yi nga xam ne ñoo ko sànc hmm? mm-hmm. ak yeneen naataango professeurs yi donc képp ki nga xamante ne muy domaine am hématologie da gis professeur Awa Touré da nga gis professeur Saliou Diop nga dem aussi si yeneen yeneen domaines yi immunologie nga gis professeur yu xarañ fa nekk mm-hmm. nga dem aussi si bactériologie nga ay euh, ay professeur yu xarañ professeur Yann Sow mm-hmm. ah moom mu ngi fa ak ñoom professeur Rougiyatou Dia mm-hmm. ak euh, donc yeneen professeurs yi nga xamante ne xarañ nañu donc domaine bu nekk rek ñi nga xam ne ñoom ñànk formation bi mm-hmm. ñoom ñoom ñoo nekk si biologie bi ñoom ñoo ñoo ñuy taataan te fa ñuy defee stage yi aussi ñoom ñoo fa nekk seeni service la donc ba parasitologie gis nga professeur Daouda Ndiaye mi nga xamante ne ràññee nañ ko fii si àdduna bi si wàllum recherche wàllum science ak professeur Jean Louis Ndiaye ñoom ñoo ŋànk parasitologie bi ak professeur Babacar Faye bi nga xam ne tey jii mm-hmm. moom moo jiite déjà euh, di di coordonner euh, diplôme d'études spécialisées en biologie clinique mm-hmm. te ñoom ñëpp dañoo nekk ci euh, l'hôpital yi di fa liggéey yor seen laboratoire ñi nga xam ne dañ leen di tamit dañ leen di taataan déjà dañ leen di jàngal ba pare di leen tataan ci euh, laboratoire hôpital yi wala ci clinique yi wala laboratoire privé yi ñu koy ñuy def seen liggéey ñu leen ci noté mm-hmm. pour que ñoom su balaa ñoo pare day fekk vraiment ñu opérationnel moom naam foofu jël nañ matuwaay yëpp ba nga xamante ne euh, ñoom xalaat nañ ci euh, bu yàgg balaa 2009 mais 2009 lañ ne comme que kii ñii dañuy jaar ni branche yi jaar nii ñii jaar ni dañ leen boole biochimie moom ñi ñi nga xamante ne ñooy xool lépp li nga xam ne mooy euh, euh, disons comme nga xool nga mu rein bi mhm. sa roño mi ngi fonctionne normalement ñuy xool mooy créatine yi wala ñuy xool sa suukar glycémie bi est-ce que yéeg na wala dafa wàcc dëgg yooyu yëpp euh, wala ñu xool sa grace bi cholestérol da nga dafa yéeg wala dafa wàcc munu munu leen ay maladie ay feebaru xool yooyu yëpp ay bio biologie biochimie ñoo koy ñoo koy càmbar mhm. te yooyu tamit aussi ay spécialité la yu nekk si biir ci biir biologie clinique bi mhm. ba nga xam ne dañuy mate lépp li nga xam ne doomu aadama la cetu baaram ba digg karaw lépp dinañ ko saytu wax la nangam même problème der soo ko amee am na mycologie mm-hmm. donc moom xeet la si parasitologie yoo xam ne moo lay wax euh, ndëgam euh, karaw yi nga xam ne dañuy dañuy dem dañuy daan daanu di am ay feebar wala wee yi mm-hmm. yëpp nii dañ koy càmbar di ko saytu di ko génne mm-hmm. donc loolu tamit aussi lu jar bàyyi xel la biologie daal macha allah donc su yeneen discipline yi meloon ni moom wala euh, ñu am benn encadrement ba nga xamante ni euh, yu mel ni moom rawatina du biologie rek faculté de médecine si boppam. Mm-hmm. biir université balaa ngaa génn di am sa diplôme di fekk nga mën a liggéey sa loxo donc lañu président son excellence monsieur le président de la république Macky euh, formation yi il faut une adéquation entre la formation et l'emploi donc foofu ñoom si biologie moom wala faculté de médecine si boppam balaa ngaa génn ngay commencer paj ngay pratiquer donc soo soo paree rek nga pratiquer lu ci fekk nag euh, faculté de médecine de pharmacie de Toronto fekk ci yeneen faculté yi mm-hmm. yeneen faculté yi soo paree il faut nga jàngat pour mën a liggéey directement mm-hmm. pour faculté de médecine moom yàlla euh, dimbali nañ ba nga xamante ne balaa ñoo pare commencé nañu troisième année rek mun nga def dara say loxo mm-hmm. rawatina nag soo paree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 liggéey bi nga xamante ne mi ngi koy liggéey fii ci structure hospitalière bu hôpital Abass Ndao tey ji eh, docteur ñu daal di tàmbale rek ci li nga xamante ne moom moo soxal lépp lu jëm ci wàllum enrôlement wala recrutement ñi nga xamante ne ñoom ñoo di infirmier ak sage-femme boobu ba léegi ñu ngi koy wax ci structure bi nga xamante ne yow yaa nekk ci bopp bi lan nga ñu ci mën a wax ci wàllu woowu waaw donc euh, da nga teg dut baaraam fi nga xamante ni dafa am solo lool lool amul solo rek si hôpital Abass Ndao mais si si l'hôpital si bëri ndax euh, euh, recrutement yi maanaam jël nit muy liggéey si hôpital dafa am ay chartes yu ko tëral maanaam ku ci nekk am na catégorie bu nekk am ñoo xam ne seen jàng day am diplôme am na ñoo xamante ni soxlawul diplôme mm-hmm. soo professeur ba ba Euh, gardien bi ba brancardier bi kii di pousse malade donc yooyu yëpp profession yëpp dañ fi nekk ñi di nettoyer ñëpp chauffeur si ñoom ñëpp ñu ngi si biir l'hôpital mhm. su ko defee nag euh, nguur Sénégal dafa am ministère bu ñuy wax ministère fonction publique ñoom ñooy recruter at bu jot dañ recruter lu mat euh, cinq mille emploi cinq mille mooy junni waaw junni junni junni doomu aadama dinañ leen jël junni doomu aadama nag si domaine yëpp la donc deux mille yi dañ koy jël ñoom jox ko euh, ministère de la santé ministère de la santé xool l'hôpital yi yi nekk ni ñaata hôpital la non seulement bëri na mais ñu jox leen tamit ñoom lu ñuy laaj moo tax pour personnel bi mate dina jafe man ba mu ñëwee fekk naa fi euh, ñi nga xamante ne hôpital bi moo leen jël si wàllu boppam ndax euh, depuis solution est communauté urbaine donc en 2002 ñu érigé hôpital bi en établissement public de santé personnel bi dafa waroon état da ko waroon jël état jëlu ko boobu euh, mairie bi moo continuer di ko di ko ko yor doom nommé directeur yi donc euh, di ko nommé maire boobu bu fa nekkoon moo nekkoon président assemblée donc nekk ci nguur gi moo taxoon loolu xaw a jaxasoo ba nga xam ne personnel dañ ko bàyyi woon noonu hôpital bi jël ko en charge donc ba ko hôpital jëlee en charge subvention ba état di joxe tamit ministère de la santé ñu koy joxe ba tey mais euh, jafe-jafe ñu ngi jik jikko woon ci ka nekkoon ministère de la santé ak ña nekkoon ci maire bi bokkuñu woon parti donc loolu di indi ay jafe-jafe ci kan mooy gérer hôpital bi ku si nekk banque sa loxo ne kële moo war a recruter personnel bi ministère ville de Dakar banque loo xam ne Euh, euh, ministère banque loo xam ne ville de Dakar a recruter ville de Dakar ne ministère war recruter. Mm-hmm. mais wante bañ waxee taxes yi bañ ko xoolee euh, décret 2002 bi nga xam ne moo érigé hôpital bi en EPS dafa am article bu am solo bu mu wax mooy le personnel suit la dévolution. Mm-hmm. maanaam comme que hôpital bi dañ ko érigé en établissement public de santé de niveau trois comme Dantec comme comme principal comme Fann donc état moo waroon recruter. personnel bi bañ ci waxtaanee kilifa gi nga xam ne moom la fi yàlla teg muy le ministre Abdoulaye Diouf Sarr moom it euh, am na ci yéene mm-hmm. ndax euh, bañ ma fi falee loolu laa ko njëkk wax am na ci yéene ba joxe na ndigal pour ñu xool euh, au niveau de ces ressources naka la ñuy def ba recruter personnel hôpital Abass Ndao mm-hmm. donc kooku am naa ci ay ay firnde yu leer am naa ci ay engagement institution yu leer yoo xam ne joxe na ko ci loolu maa ngi ñoo ngi xaar mm-hmm. donc naka la def ba recruter mais outre ñi nga xam ne dañ leen recruter dina am personnel boo xamante ne hôpital bi si boppam moom mooy signé ñoom contrat yooyu moom lañ tuddee contrat durée déterminée. Mm-hmm. day am si hôpitaux yëpp. donc da si am yooyu hôpital moo ko war a jël en charge mm-hmm. mais ñun hôpital Abass Ndao euh, sunu subvention depuis euh, deux mille deux ba léegi bañ ko érigé en EPS ba léegi subvention mosul yokk mais am na assurance. Euh, ba mu waxtaan neex kilifa gi nga xam ne moom la fi nekk le de la santé Euh, Abdoulaye Diouf nee na dina ko yokk. Mhm. pour at bi ñu ngi koy xaar. Mhm. moo tax ma am xel mu dal ne euh, deux mille vingt deux bi si kattan yàlla euh, ministère de la santé dina recruter ci personnel Abass ndaw bi benn xaaj. hôpital bi tamit mu xool ci gafam ñàkk la mën a recruter mhm. ndax depuis deux mille quinze ba léegi hôpital bi recruter wul kenn donc recruter wul kenn nit ñaa ngi dem at bu jot am ñu dem à la retraite hôpital recruter kenn mais am nañ politique boo xam ne de ressources humaines mm-hmm. nga xam ne au bout si ñaar diggante ñaari at xalaat nañu ñëpp war nañ leen mën a recruter mm-hmm. ñi nekk si hôpital bi tout au mois ñi nga xam ne la leen euh, balaa ñoo dem à la retraite ëpp mat na dix ans mm-hmm. ndax tamit aussi euh, si benn pàcc dafa am loi bi fu ñu tënkee yoon ndax nit ki soo ko recruter da koy versel euh, IPRES à prestation familiale te su fekkee li ko desee mu retraité matul neuf ans donc doo ko mën a verser mhm. donc kooku dootoo ko mën a recruter mhm. moo tax yooyu tamit mais xam nañ fañ jëm te euh, kilifa yi ngànk réew mi mu commencé ko si son excellence monsieur le président de la république nga xam ngi koy saluer tamit au passage euh, di ko gërëm aussi di ko sant si wóolte bi moom bu teg ma fi mais aussi si ndigal yu mu joxe pour ñu jàppale Abass Ndao ministre de la santé mooy le ministre Abdoulaye Diouf mooy mu taxaw ci di doxe jëfee ndigal yi nga xam ne jóge na ci euh, son excellence monsieur le président di ko xaar nag xam ne am xel mu daal ne na la baas Ndao euh, seen recrutement day doon affaire loo xamante ne lu luy weesu la Hmm? luy dalu gi lu weesu ci ginnaaw la ndax léegi ci kanam kanam mu tànk la ñu am amuñu kanam ginnaaw. si euh, wàllu IPRES boobu nga wax ak xam naa imputation budgétaire yi nu ma la déggee bu baax ni moom moo ki ne euh, gestion mairie par rapport ak recrutement wu personnel bi nekk na loo xamante ne boobu léegi xam naa amagu leen ci consensus donc mooy supposé que ne lépp lu jëm ci wàllum euh, imputation wala IPRES warut a mën a nekk lu yomb ci seen côté. non si euh, côté bu ñu koy jëlee sax mun naa ne euh, il faut ñu euh, delloo ci ko fii si yoon bi mhm. hmm? ndax mairie de Dakar ah day rek bi ñu daan recruter mhm. jël na ay personnel bu bëri lu mat cinquante neuf agents yoo xamante ne mairie moo leen jël affecté ko hôpital Abass Ndao ñuy liggéey mhm. te soo xool personnel cadre lañ ñi ay docteur lañ ñii ay sage-femme lañ ñii ay infirmier lañ donc moo leen jël di leen fayal seen bopp jox yëbbal ko Abass Ndao waaye li nga xamante ne moom lañu ñuy hérité muy personnel bi yëpp donc ñi ñi ñi fi nekkoon xam nga Abass Ndao bu njëkk nag da doon nekk hôpital politique da am sa mbokk rek jël ko fi place ko Abass ndaw amul benn diplôme waaw amul qualification donc ba mu bañ fees ñooñu nag ñu dem ba si ba am xarañ si liggéey ndax ñi ñu fee fekk dañ leen càmbar ba ñu mën liggéey mais pour nga recruter leen il faut ñu moo tax ñenn ñi ñi si gën a ndaw yóbbu nañ leen formation ñeneen ñi tamit euh, ba leen évaluer ay méthodes yu fiable reconvertir nañ leen donc pour xool naka la ñuy def daal ba ñoom ñëpp ñu mën leen euh, euh, recruter beneen bi mooy du maire yi parce que employeur seen employeur ñoom Abass Ndao la mm-hmm. maire ñi nga xam ne la ñu recruter mi ngi leen versé IPRES mais Abass Ndao ñi nga xam ne ñoom Euh, ñoom ñoo leen recruter hôpital bi moo leen recruter ci boppam hôpital bi moo leen di mm-hmm. donc ba nga xamante ni euh, am nañ fi adouage boo xamante ni xaw na xaw na jéggi dayoo. Mm-hmm. ci bor boo xam ne mën ko woon fay ndax lan mooy lu ñu jëloon ci charge en personnel dafa jéggi dayoo ba nga xamante ni mu ñu leen fay beneen bi mooy ñoo gën a néewle subvention si Sénégal ñetteel bi mooy euh, wàllum paj la dañu war a wane même xarañaay que hôpital yi ñu tollal mbàgg muy Dantec di Fann di au euh, hôpital général de Grand Yoff donc ci faj doomu aadama moo taxoon bu njëkk nga doon dégg ay coow hôpital Abass Ndao mhm. ndax soo fayee euh, fournisseur yi lay jox li nga xam ne yaay moom ngay liggéey doo fay personnel soo fayee personnel doo fay fournisseur mhm. donc yooyu doom indi ay jafe-jafe temps yi njëkk yi ngay dégg Abass Ndao di coow di coow di coow si tey si rajo yi mais léegi euh, am ñu ngi am maanaam xarañaay ah boo xamante ne personnel bi fa si jàpp pour que euh, li nga xamante ne mooy fay personnel bi fay fournisseurs yi ñu koy ñaqal suñu bopp di xaarandi tamit ndigal yi nga xam ne kilifa yi joxe nañ ko ba pare pour yokk subvention hôpital bi euh, mu jëm ci kanam. Euh, subvention bi boobu ba léegi amul évolution. ci beneen wàll wi dette hospitalière bi taxaw na docteur Ndiaye ndax loolu aussi amul lum leen mën a gàllankooral. waaw soo amee ay bor kay mu nekk sa loos. Mhm. tant que fayoo ko nii Euh, doo doo doo doo mën a feex mm-hmm. te bor bu ñu amee euh, am nañu bor bu takku boo xam ne mat na si quatre milliards mm-hmm. euh, ñu nekk si ay lempo ñu war a fay fayuñu ko courant bu ñu war a fay fayaguñ ko ameel IPRES xaalis bu takku mais heureusement ba IPRES moom comprendre nañu képp ku dem à la retraite ñoom ci li leen waral ñoom ñu ngi koy fay mais terewul bor baa ngi ci euh, proposé naa nag kilifa yi ne leen nañ def lu ñuy wax euh, euh, comme que ñoom it aussi bañ defee CPOM bi mooy contrat pluriannuel d'objet de moyens mhm. waroon nañu accompagner ci huit cent millions par at pendant quatre ans pendant quatre quatre ans donc loolu soo ko ma donc ma ne leen liñ dañ def lu ñuy wax juste bor biñ leen ameel bu ñu ameel muy état état amel ñu bor mm-hmm. hmm? nañu boole euh, ñu méngale euh, bor maanaam su ma amee quatre milliards yow nga amel ma quatre milliards nañu annulé bor boobu mm-hmm. maanaam ku nekk day remboursé sa bopp donc lool proposé naa état di ci xaar di xaar aussi tamit euh, ñu yokkal ma mu subvention xaar tamit ñu ñu recruter personnel bi te loolu suñ ko defee hôpital dina si mën a génn mm-hmm. tamit ñu yaafuus croise suñuy loxo mm-hmm. ñu ngi defar suñu moyen boor ñu wut ay partenaire fii pour fexe tamit ñu nit aussi ndax ak boor fay la ñu ngi koy jéem a fay mais il faut ñu am moyen pour gën a taxaw mun ko fay mm-hmm. te li tax ñu nekk fii mooy faj donc dañuy focaliser wu entièrement ci paj ñu ki nga xam ne Sénégal la bu fi ñëw ndax euh, li nga xam ne mooy feebar suukar diabète fii la wàlla gën a aaye mm-hmm. li nga xam ne aussi mooy euh, jigéen ñu wérul yi fii la wàlla gën a ku jaaxle fii lay envoyé li nga xam ne tamit mooy fe euh, bët ophtalmologie ñu centre euh, bu nga xamante ne référence la au niveau euh, ci Afrique bi yëpp ndax centre la reconnu par lu l'UEMOA donc agréé donc mu loon loo xamante ne tamit ay dañ si def sax opération laser bu njëkk ñu ngi doon dem Tunisie wala France fii am na fi ak yeneen domaines yi médecine interne ngi fii cardio ngi fii odonto ngi fii chirurgie mi ngi fii uro mi ngi fii pédiatrie néonat mi ngi fii donc maanaam spécialité yu ji bëri bëri euh, mi ngi fi Abass Ndao ba SAU donc ñi nga xam ne mooy buntu hôpital donc soo fi dugg donc ñu ngi jéem a xool ñun stratégie yu ñu teg ba nga xamante ne dinañ mën a di fay suñu bor en attendant tamit euh, kilifa jàppale ñu ndax suñu jàppalewul duñ ci mën a génn duñ ci a génn ndax dañuy luñ euh, koy waxee rek bay bay pour pour dundee mais duñu am lu ëpp loo xam ne war nañ ki mën a del di faj faj fay suñuy boor nu mu waree Euh, xam naa ne subvention bi moom nekk na loo xamante ne tenir na la à te ji lan nga ñu mën a wax ci li nga xamante ne moom moo di eh, masse salariale bu soxal euh, hôpital à Ndao waaw euh, soo xool ni masse salariale bi c'est pas critique ah ndax hôpital Abass Ndao ñi nga xam ne moom moo leen di fayal seen bopp ñu ngi si cent cinquante sept agent sooy xool si xayma dina dem ba ci euh, ay trente sept millions yi nga xam ne war na ko génne weer bu jot euh, ci côté boobu tamit am na ñi nga xamante ne ñoom kenn jëlu leen hôpital moo leen euh, moo moo ñëw si ñoom contrat ñooñu toll nañ ci trois cent quarante ñooñu sooy xayma lañ leen di fay dina egg si disons cinquante millions. Mm-hmm. donc cinquante millions soo ko tegee si ay trente sept millions nga war a egg si quatre vingt dix sept mille nga xam ne war nga ko génne weer bu jot. rawatina li nga xamante ne ñoo lay jox jumtukaay pour nga liggéey ñooñu su la joxee jumtukaay euh, lu procédure bi tëral quarante cinq jours yu nekk suñ jugalee seen facture foog nga fay leen mhm. soo leen fayal doo mën a liggéey doo mën a faj donc ñooñ ñu ngi taaba taaba di jàpp fii di di euh, mel ni rek tawalkatu vélo ah mhm. yenn saa ñu dem gauche yenn saa ñu dem droite pour pour taxaw mais euh, mais lu am solo ba am solo mhm. mooy am na loo xamante ne ndigal goo xam ne kilifa réew mi muy son excellence monsieur le président Macky wax na ko ba digal ko ministre de la santé ministre de la santé tamit aussi di ko jë jëfee na ko di ko jëfee ndax euh, bañ ma falee toog nañ waxtaan si joxe na ay ndigal ba ñu ngi ci ñu ngi ñu ngi xaar te am nañ yaakaar ne subvention bi dina yokk ndax moom si budget yokk nañ ci quinze milliards donc loolu am nañ ci yaakaar bu baax ndax du hôpital Abass Ndao rek ndax 2012 dañ 2010 dañ commencé fal euh, directeurs yi par décret. par décret. donc ku si jiitu muy docteur Youssouf directeur bu ñuy fal décret la mooy wane ni tamit hôpital bi donc tutelle technique bi ministère de la santé la donc foofu aussi donc dañuy war a yem traitement ñeneen ñi seen subvention ñu ngi ay milliare lu topp ñun ñuy egg si sept cent trente quatre milliards million hmm? jéggi jéggi na dayoo mm-hmm. te ñi nga xam ne ñoo leen di fayal bopp ñun ñoo ëppale ñu ñuy fayal suñu bopp si yeneen hôpitaux yëpp mm-hmm. donc si diggante boobu ba pare pour liggéey di ko liggéey fañ koy jinnee ñoo yam même prix buñ koy jinnee ba pare ñu war a taxaw euh, liggéey liggéey bu xarañ donc euh, da dinañ xaw a jafe tuuti mais mm-hmm. euh, comme lu mag ji waxoon rek su lépp di neex nañu xoolaat suñu mais si jafe-jafe lañu mën a xam kan mooy jàmbaar mm-hmm. te tey jii mën nañ ni a Abass Ndao ñoom ñëpp donc ay jàmbaar lañ ndax boobu ba léegi mbir maa ngi dox te sooxewul mm-hmm. mais ñi am xel mu dal nag xam ne kilifa yi du wàllu politique rek. Mhm. mais xëy ñun ñuy faj. waa doomu sénégalais lañ te am nañ yaakaar ne déjà comme ñu ko waxee digal niñ joxee ay ndigal ndigal yooyu subvention bi dina yokk ba nga xamante ne dinañ personnel bi tamit euh, ñu recruter ñi ñu mën recruter bu recruter euh, ba euh, liñ ñu doom xalaat tey yaakaar ñu ko teg ñu ko fi ñu mate ko mhm. waaw ñu tabb euh, ci weeru mai bu ñu génn apparemment sax mun nañu wax ne c'est un tout petit peu prématuré ñu def nga defal ñu benn bilan mais tey euh, juróom euh, juróom benn weer bi nga ñëwee ci structure bii di hôpital Abass ndaw lan nga fi jot a fekk ak ci weer yooyu nga fi jot a def même suma ma nee c'est prématuré pour ñu def benn bilan lan nga fi jot a def comme ñi nga xamante ne moom mooy sa marque déposée en tant que directeur <laughs> donc dugg nga ci hôpital bi <laughs> dugg nga ci dugg nga ci hôpital bi <laughs> donc euh, ñu xamoon Abass Ndao démb uh-huh. ah donc mois de mai la ñëw vingt six mai uh-huh. le trois juin ma jël service juin juillet lañ si teg juillet septembre octobre ñu ngi ñëw novembre cinq mois cinq mois sooy xool soo xamoon personnel Abass Ndao uh-huh. avant euh, novembre bi hmm? donc avant mois de mai nga xool seen xar-xar kanam dañu xam ne hôpital bi déjà ñoom yëg nañ changé na changé na ndax euh, soo xool fépp chantier la pratiquement fooy commencé ci bunt bi chantier la morgue bi chantier la fii euh, administration chantier la euh, laboratoire chantier la pédiatrie chantier la mm-hmm. donc chantier ñu ngi ful Hmm? ñu ngi ful pharmacie bi chantier la donc ñu ngi ñu ngi defar pour améliorer cadre vraiment euh, de vie des patients mm-hmm. mais aussi yokkaale aussi jumtukaay yi nga xam ne moom la ñu jëlee en charge heureusement si kattan yàlla am na euh, euh, ñu ñuy jox loxo muy la coopération luxembourgeoise ñu ñuy jàppale mm-hmm. foofu occasion la tamit pour sant ministre de la coopération bu nekk Sénégal mm-hmm. monsieur le ministre Amadou Hott ndax euh, mi ngi ciy liggéey liggéey bu am solo mais coopération luxembourg dafa yàgg ab euh, jàppale ab Talabas Ndaw ba fi mu toll nii am na subvention boo xamante ne ñoom jagleel nañ ko ab Talabas Ndaw pour dina ay équipement pour service yëpp mu yam ci ci xayma ci trois cent vingt six millions yo xam ne ñu ngi ko dañ koy exécuté ñu ngi lancé marché bi. Mm-hmm. beneen bi tamit bâtiment yi ñu ngi ci dinañ ko tabax tabax chirurgie complexe chirurgical tabax bâtiment administratif tabax aussi euh, complexe médic médical bi yëpp donc euh, lépp ñoom ñoo koy seen xaalis donc euh, sooy xool ci xayma ñaari trois cent vingt six millions millions la donc ñu koy xayma ci xaalisu tubaab hmm? c'est un million d'euros yoo xam ne ñoom dañ ko fi xëpp mm-hmm. donc pour dimbali hôpital bi foofu tamit ñu leen fi sant mais ça n'enlève aussi à rien dindiwul dara tamit aussi li nga xamante ne état tamit ñu ngi koy def di accompagner donc euh, soo xoolee hôpital bi sànq ba ma waxuma laboratoire waxuma imagerie ah am nañ scanner am mammographie euh, ville de Dakar bi ñuy waa jox IRM hmm, dañ def écho rajo lépp fii mi ngi fii laboratoire bi mucc na ayib am ay appareil de dernière génération même biologie moléculaire deux mille vingt deux bi dañ koy commencé ndax euh, jumtukaay yi ñu koy defee. Mhm. coopération Luxembourgeoise dañ leen ko jinal tegal ñu ko fi. Mhm. donc mu doon loo xamante ne aussi euh, lu am solo xoolal hôpital bi la lépp chantier la. Mhm. lépp chantier la dinañu xool aussi maladie fi nga xam ne fa la ñuy fayee facturation ak caisse dinañ ko gën defaraat ba nga xamante ne ku fi ñëw déjà ñu xam ne ñu euh, orma doomu aadama la ñuy moo ñu fi tax a teg te ñoom ñooñ fi tax a teg ñoom la ñuy liggéeyal population sénégalaise tey ñooy malaat suba ñun ñi mën nañ leen doon malaat yi mm. te nañ nañ bëggee ñu toppatoo ñu ñun ñii suñu wàll bopp noonu lañ leen toppatoo mm. ku si nekk jaa ngi def sa cëmtulaay kàttan soo xoolee xar-xar kanamu hôpital Abass Ndao ñi ko xamoon euh, deux mille vingt et un su ñëwee deux mille vingt deux dinañ xam ne coppeeku am na lool lool lool. Mm-hmm. du naag càggat ne nag damay <laughs> damay damay damay non damay yokk yokk yokk suuf si si si farine bi levure waaw pour pour xëj ko sama boor ah. mais euh, génna lañ nga xool nga laajte mm. donc di nga gisal sa bopp ne xarxar bi changé na euh, ñun nag duñ ci lenn personnel bi yëpp la mm. ñëpp ñëw jàpp ndax man seen biir laa nekkoon depuis mille 2004 mm-hmm. ñu jël ma teg ma seen seen kanam donc ñu nangu ko àndax man di liggéey mm-hmm. te tey jii nee nañu nga ñu doon benn say hmm? moo ëpp solo que benn nit rek di décider te tey jii say lañ ñooy xàccandoo di dóorandoo pour rek intérêt juste maintenant population sénégalaise donc fi mu toll nii ñu ngi sant yàlla donc kii yaa ngi ñëw nu mu tëddi euh, partenaires yi ñu ngi ñëw ndax euh, seen xel dalee rek gis ne ki fi nekk aussi xam na fu mu jëm dañ lay accompagner te teg nañ suñu business plan boo xamante ne képp ku bëgg a ñëw investir hôpital Abass Ndao noonu la ko waa Luxembourg ñëw nañ mm-hmm. italien yaa ngi ñëw américains yi dinañ egg si asiatiques yi ñu ngi ñu ngi bëgg ñëw parce que ñoom ñoo ànd ak Dantec ñu ngi bëgg ñëw fii pour ñu ànd tamit pour liggéey donc loolu dañ koy sant yàlla parce que pour ñu investir fenn ñoom day doon foo xam ne seen xel day daal mm-hmm. te exemple de management bi ñu fi tëral c'est un management participatif mm-hmm. ak ñu kenn mm-hmm. kii di bale ba ci professeur bi ñëpp dañuy indi seen xaas ñu boole taxañ xool li gën ñu toxalee ko moo tax xarxal kanam hôpital Abass Ndao changé suñ koy saytu nag ñun en tant que gestionnaire da ngay xool Euh, ba ñu ba may ba may ñëw euh, cent vingt deux millions l'hôpital defoon ci mois mois de mai boobu mois de juin ñu ñëw si euh, cent trente sept millions mm-hmm. mois de mois de ju juillet ñëw si cent quarante sept millions mois d'août ñu nekk si cent cinquante quatre millions mois de sept septembre mu gën a jóg donc actuellement sumu mu ko continuer noonu di nga xam ne hôpital bi ñu ngi liggéey mi ngi liggéey te am na loo xam ne waruñu ko réere mbir mooy la ñuy fayeeku malaat bi moo gën a néew si Sénégal que yeneen hôpitaux yi ndax ministère mm, waaw Abbas Ndao non seulement ñoo gën a néew les subventions ëpp charge personnel la ñuy jënd ñoo jëndee ko si même même njëg bi mm-hmm. que yeneen hôpitaux yi mais terewul ci loolu ñun la ñuy la ñuy fayloo malade moo gën a néew si Sénégal mm-hmm. donc diggante boobu xam nga ñu ne pour nga génn si day jafe mais yàlla ñuy jàppale ndax euh, kuy def sociale fu foo jaar yàlla ji moo siy dugal loo xam donc ba nga xamante ni moo tax ñuy def euh, ay investissement yi ñuy def yëpp pour hôpital bi changer mais lépp nag pour rek malade bu fi ñëw mën a am juste maintenant satisfaction mm-hmm. euh, aujourd'hui soo ñëwee fële euh, en face laboratoire bi ak imagerie ah teg nañ fa espace bi nga xamante ne bu mucc ayib espace vert amaana la jet d'eau pour malade yi mm-hmm. parce que hôpital non seulement du lal yi hmm, mais mais de vie da ciy bokk environnement bi fii soo génni si administration bi ñu ngi koy pavé di ko defar mm. bâtiment yi fekkoon nañ leen ñu délabré yëpp reprendre leen peinturaat leen mm. defaraat ba nga xam ba ñu yaakaar ne hôpital bi bu bees la lépp nii suñu magistère lañ ko def def si def ay li ñuy wax euh, ay séance de travail dem si service bu nekk waxtaan ak chef de service bi xool lan mooy tagal lu tax mënul performant mm. xool problème yi di régler problème yi. Mm-hmm. te nuñ koy régler mooy naka président doom son excellence monsieur le président Macky Sall digle mooy en mode fast track dañ koy yëg léegi saaf saafara ko léegi. am na ñoo xam ne am nañ ay soxla yoo xam ne mbébét xam ne mbatoon na ay juróomi at ñu koy mbébét direction bu fi ñëw ñu koy mbébét ñun bañ ñëwee si kattan yàlla dafa def dañ koy wax rek mu sotti. Mm-hmm. donc loolu aussi duñ ne rek ñun la mais dañ koy sant yàlla parce que benn nit mënul dara. donc yooyu yëpp euh, muy personnel muy muy environnement bi muy bâtiment muy euh, climatisation muy ay bureau muy euh, jumtukaay ñu war liggéey fexe nañ ba ba ñëwee aussi également fekk nañ ci benn gabu un an si procédure administrative bu ñuy réglé boo xam ne moo de fast rek tey jii lépp ñi nga xam ne dañ ko war a signé ñun ñooy njëkk a fay salaire si Sénégal mm-hmm. Mm-hmm. Sénégal moom daj ñoo fi njëkk fay salaire mm-hmm. day fekk ñun balaa le quinze lépp li nga xam ne war nañ ko liggéey si le plan administration ñu ko yóbbu ko si agent comptable mm-hmm. nga xam ne moom dina am fukki fan ak juróom yoo xamante ne balaa ñuy fay salaire yi mu càmbar xool ndëgam lépp nekk na en en ordre mooy xool le mu commencé fay mm-hmm. donc te lépp lu ñuy warlool personnel bi ñu leen di bett également seen droit xaruñu ñuy xoj naan fay ñu suñu heure supplémentaire fay suñuy motivation dañ koy fay te fu ñu ko xaarewul mm-hmm. donc loolu aussi muy daan touche boo xamante ne am nañ ko ñu ci sant yàlla tamit parce que dañoo ñëw jël jël boole ñëpp ñu xool lan nit ki di liggéey il faut tamit aussi mu nekk ci environnement boo xamante ne dina dina mucc ayib ba nga xam ne moom du problème këram da koy fàtte su ñëwee mën a nga nga koy fay droit am à temps pour que mu mun a faj soxla yi nekk kër ga mais aussi nekk si environnement boo xam ne dina mun a liggéey dina mun a épanouir beneen pàcc bi aussi képp nga xam ne tamit ñu ngi def formation ñu ngi leen di pousser ñoom pour ñu yokk seen i xam-xam donc appuyer di accompagner si formation yooyu suñu marque de fabrique la boo xam ne ñu ngi koy def en mode fast track voilà donc yooyu la ñu xam ne aussi teg fii aussi euh, euh, journal bi nga xam ne pour Abass Ndao la donc euh, première édition bi génn loolu tamit aussi musu woon am lu fi lu fi soog am la. Mm-hmm. di wax a Ndao euh, lan lan la am comme ay spécialité yu nekk ci biir kër gi. Mm-hmm. ba pare di xoolaay yenn agent yi chaque. trimestre ñu génne xool benn agent moo fi gën a méritant ñu def benn focus ci moom. xam la pour nit ñi xam ba suba tamit ñeneen ñi mën a roy agent boobu ba def ci teel a xëy si def liggéeyam nu mu waree tamit am yërmande si malade mm-hmm. mu mel ni bi sori na ngay wax nii ay ay ay ay approche yu bees yoo xamante ne non seulement day vulgariser ñi fi nekk mais aussi day dooleel ñi nga xamante nekkoon ci point A ñu gis ne am na ku ñu nommé dañuy gën a góorgóorlu def persévérance. voilà beneen beneen loolu aussi euh, su su touche marque de fabrique mhm. bu njëkk malade de ñëw euh, soo ñëwee urgence ñu ne la demal defi demal laboratoire jóge laboratoire demal defi écho demal defi lii léegi ñun dañoo ñëw si logique médecine d'urgence au lieu malade bi di dem si service yi service yi ñëw si malade bi maanaam suñu urgence dina fekk lépp su war def écho dañ koy defee donc yëpp dañ ko def ba nga xamante ni malade bi du def bougement yu bëri te lépp lu médecin bi soxla pour saytu euh, si bi dina ko def sur place mm-hmm. donc yëpp mu day ay euh, initiative la mm-hmm. yoo xam ne dañ ko def juste maintenant pour non seulement réduire temps d'attente bi mais ñu mën a am rapidité de prise en charge des patients mm-hmm. te képp ku fi ñëw aussi am tolof tolof même su fekkee ne lañ lañ lañ fay wut amul ci kër gi dinañ la conditionné taataan la dalal la soog la mën a euh, envoyé faneen donc li nga xam ne bu njëkk xëy na daal fi am lu fi amul la dañoo wax am fi mm-hmm. mais léegi euh, il faut nga xam ne ñoom ñëpp am nañ conscience professionnelle boobu ñu ngi koy def te ku si nekk aussi dafa jàpp ne mooy directeur tey jii neewuñu rek docteur Ndiaye mooy directeur suñu la nekkoon mais tey ji personnel boo jël dafa jàpp ne mooy directeur ku si nekk dafa bëgg ne ah, am di ja jaajëf jaarama ne man participer na mm-hmm. te loolu euh, du du sama jëmm ji mais xëy na yàllaa koy def ba nga xamante ni ñu si bari seen xol dugul dugul na si te li may def aussi def ma ko pour. lu neex ma sàmb lu neex ma dem ba mais dama koy def rek parce que damay jot ne loolu mooy dëgg te mu jot ne également suba malade bi di ñëw si ñun suba ñun mun nañ doon malade boobu nekk platement malade bi donc esprit boobu la ñuy doxee nee naa Sénégal euh, luy wàllu bind réforme hospitalière la ñu war a bind bind nañ ko mais lan mooy problème bu bu ëpp mooy nit ñi conduire mir mi ñoo war am jikko am melokaan am comportement am doxalin boo xamante ne euh, la ñu bind day méngoox li ñu bind donc euh, loolu aussi ñun ñu ngi fexe suñu kéem lay kanam ba di méngale jëf ji ak bind de sorte que ñu xam ne vraiment Sénégal euh, gàcci galam ci tënk rek euh, lan nga ñu mën a wax kon ci li nga xamante ne moom mooy la gestion des structures hospitalières boo leen doon noté tey structure hospitalière yëpp de manière générale rek pour tëj waaw loolu dina doon question boo xamante ni ah, question bu doy la waaw question bu doy la ndax <laughs> nee nañu euh, na ko tubaab waxee on ne scie pas euh. la branche sur la sur laquelle on est euh. donc loolu day doon loo xamante ne dina doy waar ku sa gis-gis mm-hmm. ku si nekk sa gis-gis mais ñëpp ñu yor hôpital yi dañoo regroupé wu si benn association ñi ñi jiitu ëpp expérience ñu ngi gunge ñi nga xam ne ñoo soog a bees ñëw mm-hmm. ndax mbir mi du sama hôpital moo gën a dox mbir mi mooy na hôpital Sénégal yëpp dox da nga xamante ne képp foo mënta nekk dinañ la mën a fekk faj faj bu mucc ayib donc ñun ci logique boobu lañ nekk moom aussi ci nga xam ne mooy suñu jiit direct mooy directeur de la euh, euh, des établissements publics de santé muy le euh, monsieur le directeur Ousmane Dia noonu lay doxalee logique boobu lay doxalee moom it aussi ki nga xam ne mooy kilifam di suñu kilifa ñu ñëpp également docteur Fatou Mbaye Sylla muy DGS directeur directeur général des établissements publics de santé moom it ci loolu boobu lay doxee mm-hmm. te loolu dafa ànd ak vision son excellence monsieur le président de la également vision euh, ministre de la santé mm-hmm. ànd également vision directrice euh, générale de la santé muy euh, docteur Marie Khemesse Ngom mm-hmm. donc noonu la ñu doxalee du ñàkk nag ci nit ñi ci capacité am kii gën a gën a njaxlaf kaneen ki gën a xarañ keneen ki kooku du ñàkk yàllaay maye du tollale comme baaraam yi nu nekk suñu ndox noonu nu tollewul ku nekk am njëriñ bu beneen baaraam moom amul noonu tamit dañ koy gis si si pratique mais lépp lu ñu war a bind bind nañ ko accompagnement bi si war mi ngi ci lenn rek moo des mooy euh, ñu gëm ne vraiment liggéey luñ suñu bopp dañuy liggéey pour sénégalais euh, te tey jii euh, ñun ñi nga xam ne yàlla dañoo may chance ñu nekk ci l'hôpital yi hmm, war nañ def suñu kéttalay kattan ndax suba aussi suñu feebaree si hôpital lañu yaakaar donc comme que moom lañu yaakaar nañ ko tabax non pas pour ñun mais pour ñii di ñëw ak ak euh, aussi pour ñun suñu bopp mm-hmm. parce que ñun suba aussi mën nañ ñëw nekk mu nekk malade ndaxte euh, ba kenn gën a fort mais pourtant dañ ko fiy bàyyi ah ñu dem dem yamal xiyaam donc loolu daal la ñuy laay wax mënu ma leen évaluer ndax ku si nekk mi def si képp la gàttam mm-hmm. idée bi benn la hmm? vision bi benn la mais ñu ngi koy jéem a éduquer ñu ngi dañuy daw ak xel Hmm? ñii di ñii di daw ndànk ñii di waaxu ñii di raam hmm. mais ñëpp déjà ñu ngi benn say lañ rek hmm. say boobu nag la ñu jéem fexe ba nga xam ne fépp ci biir Sénégal euh, foo mënta dem dinañ la faj soo xoolee léegi euh, l'hôpital yu bees yi ñu tabax hôpital yu mucc ayib la yoo xamante ne ce sont des hôpitaux modernes waa Europe waa ngi wàññi ñëw ñu leen si lenn sunu hôpital yi nga xam ne fekk nañ ñu njëkk leen créer ñu nekkoon fi ñoom aussi euh, jiitum réew mi muy son excellence monsieur président Macky Sall moo it joxe na ay digal ba nga xam ne nañ leen renforcer moderniser leen de sorte que juste maintenant euh, ku fi ñëw ñu mun la jël en charge comme soo nekkee Europe te loolu ñu ngi si bay suñu waar donc nit ku nekk na mi si bay suñu waar mais nee na am na qualité am na défaut. Mm-hmm. am na qualité am na défaut donc di nga gis ñoo xam ne dañoo njaxlaaf dëggantaan a ñoo xam ne euh, seen njaxlaay njaxlafaay dafa des mais loolu lépp dañ ko dugal la juste maintenant si. avantage yu bon qualité kii qualité kii mais yëpp ci benn vision bi la benn vision bi la donc ñu jëmandoo aussi également am bokkandoo benn objectif muy euh, faj képp ki nga xamante ni am na tolof tolof bu mu mënta doon ci wàllu wér-gu-yaram ci biir fii ci Sénégal rawatina fii ci Abass Ndao yi xam ne man fa la euh, mu mel ni waxtaan wi am na solo la waaye li ñu mel ni li ñu cëraloon ci waxtu bi yegg nañ ca docteur Amadou Ndiaye sa kàddu gu mujj. waaw di euh, di gërëm di la sant Fatou Baba ba nga ñëwee fii tey permettre moi aussi si euh, seen rajo bi réew mi mhm. mën a euh, taxaw saafonte indi ay leeral yu njëkk si fonction biologiste mhm. mais aussi wax de manière générale sur système de santé bi mhm. bi nga xamante ni lañ war a bind yëpp ñu bind nañ ko mais ci nit ñi ko war a conduire moom moo xawoon desandi si yenn pàcc mais organisation bi ñu koy def ba nga xamante ni euh, dinañ mën a egg si fuñ fu ñu fu ñu xam ne fa lañ war a egg si euh, kattan yàlla te lépp nag lenn rek ko soxal mooy euh, population sénégalaise képp ku feebar foo mënta nekk nga am ñoo xamante ne am nañu jumtukaay yi ak xarañaay bi pour jël la en charge donc loolu la di gërëm également son excellence monsieur le président Macky Sall bi nga xam ne moom moo am qualité teg ma fii mm-hmm. euh, mooy wane ne am na yaakaar si ndaw ñi mm-hmm. ndax soo ma xoolee nii de dañ naan euh, du ma du ma du ma maat noonu ndaw laa mm-hmm. ah. donc ndaw laa donc am na confiance si ndaw yi te effectivement euh, dinañ ko wan ne si yaakaar gi mu am si ñun ak vision boobu ba teg ñu fi voilà duñ ko mos a euh, rusloo dinañ def suñu kéntu lay kattan di remercier également sama kilifa yi nga xam ne moom it aussi si moom la jaar mooy mm-hmm. le ministre de la santé Abdoulaye Diouf saar ndax euh, tey jii lépp li nga xam ne si wàllu santé la gis-gis gi boobu président am ko ci moom lay jaar mm. mu soo ko euh, bu wàcc si ñun ñun ku si nekk nekk mission bu ñu la sant mooy def sa kenn lay kàttan ba képp ku fi ku dugg ci hôpital bi balaa ak ak torof torof sooy génn vraiment mu féete la ginnaaw. Mhm. donc di leen gërëm di leen sant di aussi euh, euh, sargal ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi déglu euh, rajo bi. Mhm. di leen ci gën a ñaax ne leen fi fii la fii fii fii la information yu baax yi yu wóor yi ak yu leer yi nekk mhm. wasalaam. Euh, merci beaucoup kàddu yi rafetlu nañ ko bu baax a baax euh, fàttali ne vraiment ñu ngi doon amaan mbégte ak bànneex di daral ki nga xamante ne moom mooy docteur euh, Amadou ndiay vraiment di ko remercier par rapport ak disponibilité vraiment ma fàttali ne moom Amadou ndiay moom moom biologiste la waaye ginnaaw biologiste bu mu nekk nag moom moo nekk directeur hôpital Abass Ndao fàttali ne yéen a ngi doon teewlu seen émission bi di SOS santé Fatou Baba Fall moo nekkoon ci micro bi Léopold Mendy nekkoon ci xarale bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité